biir naar yooyu nag naal yooyu nag am na ci boo xam ne bu am solo la ci lañ bëgg waxtaan tey muy lu ñu tuddee këru barkeelu yi muy kër goo xam ne li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ci ndono moom lañ fa fas yéene sàmm ñoŋal ko donte daana am mi ngi fi mi ngi fi woon am na fi waaye nag ñu gën koo méngale ak jamono ndax ba tey ku dem ci kër yu mag yi fekk fa loo xam ne ci ku baax ki la bàyyikoon wala ca mag ñam àndaloon wax na ñu gis ne saytu wi ñu war naa mën a gën a tolloog jamono ba nga xam ne état bi ñu ko fekk dootu gën a dellu gannaaw buñ ko munta gën a yeesalit dootu gën a jëm ci màggat ñu jàpp loolu am solo la ndax sëriñ bi dafa doon yonent bi ci lépp bu loolu jàllee wax naa léegi ni li ñu fi bàyyi woon it ñu ngi ko doon saytu ba léegi li tax ñu fekk ko fi kon ay nit a ko saytu woon ba mu egsi ci noonu kon nag lii war warugar ci noonu mooy ñu fexe ba ñu it ñu def suñu wàll saytu gi ci ci gan anam lay mën a amee mooy ñu wutal ko barab boo xam ne loolaa koy tax a nga xamee ne euh, daaray kaamil am na ku ne xam ne ay téere ko tax a jóg kërug xasida am na ku ne xam ne xasida yi ko tax a jóg kërug alquran am na ku ne xam ne alquran ko tax a jóg jaaru na mu am kër goo xam ne jeexiti Serigne Touba ak ndonal Serigne Touba moo fay nekk rawatina rawatina ñu am ci ndigal ndigal li nag lu yàgg la ndax xalaat bi gaaraloon nañ ko sëñ Saliou Mbacké radiyallahu anhu ba mu rafetlu ko sëñ Baara noonu sëñ Sidi Mokhtar noonu sëñ Sidi Mokhtar sax moom joxe woon na ci ndigal loo xam ne enregistré nañ ko waaye nag sëñ Mountakha moom bi ci bi mu ñëwee daf cee dolliwaat leneen mooy daf noo tànnal aw tur na nañ ko tuddee al matxaful islaamil xadimi mooy këru lislaam gu ñu moomali sëñ Tuubaa fekk na nag ndekk sëriñ bi ci boppam sax moom lu ko mat lu ne ñaan na ko borom ba noppi te lu mu ñaan lu yàlla def ba noppi la kon lii ndam tey ngóore ci noonu nu fexe tàbbi ci biir ñaan gu nangu ba noppi mooy fexe dox ci yoon woo xam ne dina mën a nekk taxa yemul foofu dañoo jox ci biir mu jamaa Cheikh Khadim di darasati islamiyya te mooy complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour pour les études islamiques fa la ñu jox terrain boo xam ne nee nañ ko fa def foofu itam defar nañ ko ba ci màggal gi sax yàlla dogal na defar nañ fa ab salle ba def def exposition ba ñu baree bari visité nañ ko ba lenn ci kilifay réew mi ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàll googu ci nguur gi ñëw nañ fa mu ñuy toppatoo wàllu aada ak cosaan jiite wala ñaar ñi ko jiite ñëw nañ fi ci màggal gi ba visité ko ba gis fi ñu bëgg jëm ci liggéey bi ndax loolu it ci la bokk ndax am réew boo ca nekkee ñi ngi ko séqal ñu féete ci wàll googu waroo caa def lu umba loo leen ump loo tax ñu yëgaleen leen ko ba ñëwoon nañ kon ñu xam ne foofu lañ toll ci liggéey bi fas yéene dox boobaak léegi itam dox nañ ci ay jéego def nañ études yi ci war def euh, plan architecturaux yi ci war euh, ba defar maquette maquette bi sax biñ ko biñ koy defar dañoo bàyyi xel euh, li nga xam ne lislaam a ko moom ci wàllu googu ñu méngale ko moom biñ koy defar lu itam biñ ko dessiné ba defar plan yi ni ñu ko xalaatee bi dañ koy yóbbu Turquie ndax lan ngir ñaari yëf Turquie ñu am ak xaral la lañ ci wet googu ci wàllu maanaam expertise ci loolu ñaareel ba barkeeloo ko ci. li ñu wax ne jumaay njaareem bi bi ñu koy liggéey plan bi fa la sëñ bi yónnee woon ci jaarale ko Cheikh Issa Diagne fa lañ ko defare ñaari mbir yooyu mooy li taxoon ñoo bëgg Turquie defarloo ko fa ba mu doon plan bu mucc ayib bi ñu ko wane sëñ bi te mu bëgg ci lool kon daal lii ci gàttal mën nañ ne ci lañ toll nekk ci nag di ci dox ak sëq kook ay bokki taalibe ak léegi itam lii bu fi wax lépp am koom moo koy def ñu am benn koom moo xam ne li ëpp ci fa mu mooy groupe bu ñu def boo xam ne ay mbokk taalibe ñooy coobarewu kenn ku ne loo mën def ci euh, ba lu ci egsi ñu mën ko caa def euh, bëgg a wéyal liggéey bi noonu